woon naa leen ni bis bu nekk ak liy xew bis bu nekk ak kii ñëw tey nag dañu ñëw fii ci artiste comédien yi fekk si ki nga xamante ni tubaarikàlla moom mooy Cheikh Sarr mu àndandoo waa dara dunya ak waa daf sa wareef ñu dégaloo tey di def ay séance de atelier war ñëwoon benn création boo xam dafa doyo doyo doyo waar mu jugee ci seenum xel ñoom jugee ci seen doole tey dañoo bëgg waxtaan ak Cheikh Sarr waxtaan bu dal bu dus bu xamante ne si nii macha allah mus fi am mi ngi ni toog di naanaan boo xam ne nag kenn du ko présenté ñëpp ko xam tubaarikàlla kii théâtre Sénégal am na lu mu ci doon nee naa ne théâtre Sénégal moom mii mu ni ko boole ci papa yi tubaarikàlla mu nekk na yor ay xale di bay waaram bu baax baax a baax a baax a baax a baax Cheikh Sall ziar naa la

Eh, eh, eh, benn xeer la bu jam ñaari picc kon tey émission bi mbay dina doon émission bu doy waar. daa war a rëtatoo. <laughs> waa rëtatoo too. <laughs> waaw tey daa war a doy waar waaye xale yi dañu dagaloo woon ci biir koor gi def ay formation daan doon liggéey liggéey boobu mucc ayib liggéey bu doy doo boo xamante ne si macha allah xale yëpp ñoo ci yëg seen bopp yow aussi nga yëg sa bopp tey loolu gën a yokk tax sax ñu ne dañuy dañ la woo pour pour ñu waxtaan ci ah, bëggoon nañu xam liggéey boobu noonu na la demee woon quoi. waaw tout d'abord damay féliciter xale yi di féliciter euh, euh, def sa wareef di tamit Daara Dunya parce que yaakaar naa ni liggéey bi eh, durant weeru koor bi comprendre xam nga dix jours sax moom lañ jàppoon ni dix jours de formation ñu waxtaan ci man ak yow ñu waxtaan ci mais bi ñu demee euh, ba teg benn création boo xamante ni création bu mucc ayib la te création boobu noonu ndeysaan dinañ ko exposé euh, du yàgg dara incha allahu rabbi euh, bu ko defee ñëpp dinañ xam ni carrément dix jours dix jours koor gi li ñu tëju di ko liggéey loolu am na solo waaw loolu am na solo bu baax a baax a baax a baax doon nag loo xamante ni mbay dañ la ciy sant yow di la gërëm sax parce que initiative bi ci yow la jógee quoi vraiment loolu moom ñu ngi la ciy sant di la gërëm bu baax a baax di gërëm tamit artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkandoo ak ñun mbay imagine 10 jours koor ak koor ni mu méttee. xale yi dem nañ sax dem nañ sax ba bi ñuy bàyyi sax ba bi ñuy pare bi ñu demee bay pare ñoom doyaluñu mm. da ngay sentir loolu ci seen kanam da sentir loolu ndeysaan ak yéene bi ñu demee wax dëgg yàlla yow tamit nga demee ñoom yéene boobu noonu kon lépp rek yow la xëy na da baax nii rek ak gore nii naan ma man la waaye lépp rek yow la <laughs> <laughs> du ma ci lenn waaye Cheikh ba léegi ci waxtaan bi ñu gis ne 10 jours yooyu noonu ngi nekkoon ci ci biir salle bi daan doon def formation que yow Cheikh yaa fa nekkoon woon ak ñoom di leen na di leen dooleel ci biir ci biir loolu defe naa que ni war na mën a génne ay talent formation bi war na mën a génne ay xale yoo xam ne am nga ci ñoom yaakaar que gis nga ni ñii ku leen teg loxo ñu dem ba xam formation bi génne na loolu wala génnewu ko macha allah Mbaye euh, dañoo dañoo wax ni théâtre dafay feeñal dof mhm. diiran formation bi man gis naa ci ay jeunes talent yoo xamante ne nii waxuma sax ku leen jàppale de mais ku leen teg loxo rek ñu dem parce que xam nga kan moo neex a dimbale mbay ku bëgg mhm, mhm. te xale yi bëgg nañu théâtre mhm. xale yi bëgg nañu théâtre mbay xam nga xale yi dañoo daw ñoom ñëpp dem uti ji théâtre laay ndeysaan ñoom ñëpp dañoo daw dem uti ji théâtre mais mbay bu ñu fa fekkul théâtre loolu déception la déception la loolu déception la kon nag ñun tabarka la tabarka ñun dañuy sant yàlla baax a baax a baax a baax bu ñu ñëwee ci ñun fekk fi théâtre dëgg kon ñun amuñu lu ñun tiit parce que ci biir formation bi wax naa wax naa ko xale yi ma ne leen man ragaluma euh, maanaam formateur yi nga xamante ni ñoom la ñuy cité fii ci Sénégal ñu ñëw bettuñu ñu ñëw ubbi buntu saal bi non du ñu dagg mukk suñu ay science dañ koy continuer di ko def c'est parce que xam nañ ni li ñuy def nii dafa jaar yoon te xam nañ ni carrément xale yii nii kat am na fu ñu nampee te tey jii nii maanaam namp boobu noonu ñu namp moom la ñuy gàll ci xale yii nii. Uh-huh. kon xale yii nii man man gis naa fa ay jeunes talent yoo xamante ne nii ku leen poussé ñu dem ku leen jàppale ñu dem c'est parce que bëgg nañ quoi. macha allah waxuma la kenn rek si génn de ay. ay ay waaw waaw ay jeunes talent lay génn incha allah. <laughs> dafa naa waxtaan bi loolu leer na bi waaye Cheikh man damay jot ay écho parce que xam nga liñ naan wax boo ko sànnee bul xam ku koy capté damay jot ay écho mu nekk lu may tuuse man ndax dama yor ay xale comme li li gars yi di wax naan te te ci sunu biir artiste ñun ñoo ko comédien yi que ñun amuñu capacité yor ay booy. ñun mënuñu def ci booy dara ñu am ñu naan sax ñun dañuy dañuy sànq xale yi dañ leen di yàq dañ leen dañ leen di def loolu dañ leen dundloo naka su dul noonu bëgg naa nga leeral ci nit ñi bu baax a baax a baax. waaw Mbaye bii nii même man sax écho yooyu noonu dama koy dégg dama koy dégg mais mbay ku dul toppee kenn du la topp. dëgg la ku dul toppee kenn du la topp mbay Ndiaye yow da ngaa daj lu métti ci théâtre man ma daj lu métti ci théâtre ñu ñu ñu ñu ñu mbapandandoo ba fi ñuy toll nii ndeysaan ñu defandoo lépp ci théâtre dëgg la xale yii nii ñoom dofuñu xale yi nii ñoom defuñu xam nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ku leen di nax ak ku leen di jàngal te ñoom xam nañ ni carrément dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ah bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla rek tax ñoom xam nañ ni ñu ngi dund théâtre dëgg la ñoom xam nañ ni carrément ñu ngi dund théâtre te ñoom xam nañ ni carrément ñun naxuñu leen te sànkuñu leen ndax fañ leen jëlee démb ak fu ñu leen indi tey wute na yàlla dafa ni njëkk leen defar nit ñi ba pare ba ñu nite ba pare ñun nag ñun suñu xale yii nii balaa ñoo def ci ñoom théâtre dañuy fexe ñu nite ba pare dañuy fexe ñoom ñu nite ba pare te wax dëgg neex yàlla koo ci dajal ci mbedd bi di nga xam ni kii démb ak tey ute na kon loolu noonu réussir la mhm. am na loo xamante ni def nañ ko ci ñoom te seen way juri defuñu ko ci ñoom kon loolu noonu dañuy sant yàlla bu baax te te tamit beneen bi mooy que ñi ngi def ci ñoom théâtre mhm. te fu ñu tëjee ak seen nawle artistes yi dinañ leen wan ni carrément ñun dañoo formé wu te dañoo formé <laughs> ndeysaan loolu loolu tax mu neex mooy man nga tontul man moom xam nga man dañ ma yab ah. lu ne laay dégg mais yàlla baax na li ne gis nga li yàlla xam dafa gën li doomu chômage ñuy waxtaan mu ne su ma jabar baax na su ma amoon oto baax na su ma amoon kër baax na mais na am yàlla rek na xale yi dañoo ànd ñoom te yàlla rek tax da ànd ñoom ci liggéey liggéey moo ñu ñoom ci dëgg ci fula ak fay te ci ngeen ci xam dara ndax xale yi danañ am luñ doxal ngeen xool ko ci création bi laa ko dem dañ ko def live en direct <laughs> kon mbay kon ñu dem ci création après ñu dogu ñëwaat. après ñu ñëwaat ci programme bi. waxtan ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. way tamit su ko defee sama réalisateur nga won ñu euh, création bi nga xamanteni ne mom la xalé yi euh, nit ñi sétane ko live and direct lay doon mustam am. atub njabar atub njabar atub njabar. d'accord naa taxaw fii di leen nuyu. maaleykum salaam. bu kaddu njabootu. eh. Hmm. yow moom jom amoo ko. dama ne. coono lay ba de. I da da. fayda borom juddu woo si maanuma te yaru woo si maanuma juddu woo si maanuma te si maanuma ay fii nga yaru si maanuma doomun ba ba ngay dee I monoma ate yaruwo se monoma take ah yaruwo se monoma dadu no baba ide torodo torodo torodo la ile la la jide bora inda ya bai fula faida bora waaleykum salaam jërëjëf. sama gént bi moo ma fi ne ma sama tund wi jàmm rek a fi war a sax njaboot ndax su ma bëggoon a fee di ngeen ma tàccu. waaw waaw tàcc leen.

ngir jëm si tund jéemi bii te jàmm képp indiw ko de tawra baal di ñu nettali dalal dalal dalal géem liggéey naa ci du wax jàmm tawra kunde xam naa ne tool baay biraam ni ma jaaroon léegi mooma naa jël ñu yem doog jàmm leen ay kàddu yot leen ma seen i doom ndax ma benn yoon rek laa wax noppi nañ ngir loo fi indi cër bu ndox mu laab saw mën nga yóbbu réew jëmm ju mari bu lew tuur mën ta ci jëm réew ay su ngeen xamoon ki ngeen àndal kenn ku nekk ci yéen dina wari fam laam ndax ëllëg ci ay nakaar rek ngeen dafa yomb dafa yomb waay dafa yomb ak kan neexoon njéeme jox ma ndigal ma fajal ko bépp naqaram du fa fanaan ñu yendoog jàmm gis nga àdduna bu ñëpp yemoon am ñu gédd seen cër ñu yendoog jàmm ngeen doog dem naa fa waaye fekkuma ko fa fekk naa fi njabootam te doom ndaje da dëgër ndax su koy nampal da koy xool am naa yaakaar ni balaa jant soow dina ci jot. daw raw ñaata man ak mom ñoo bok ben lal biñ fanal bi wa waaye ca njël laa ko gëna gis. kan ma sant naa ma jàmbaarloo ngeen wuy mucc naa li xam ñoo ñaaw ko gën a xam gis nga dëkk gi doon nëpp dafa démb ak nga ci dem tey jii dafa def fekk ñi moom lii moom déedéet ma taxaw tey moo ko wax. tey nag bu dee taxaw ci mbooloo di wax sa dëkk mooy wax. huh? yàlla doom fàtt na bërk biig te doom amul jotu jàmmaarloo demal su génnee lal dinañ la woosi kan moo sañ dal fu jàmm yendu jàmm fay fanaan fu ay yenduwit it aye fay fanaan te kuy nelaw ci ay munoo wax ba doo yeewu ci ay demal bu génnee dañ la woose sama ëtt kan moo sañ a ñëw sama ëtt man. njabar ñun ragaluñu la dafa fekk ni daa am lu ñuy jomb. jéeme ñetti fanu lëm nga def ko ci benn fan. la ilaha illallah. Ah! dara. Ah! li ma fekk ci sama lël. Hmm. moo ma génne jot na sakk ngir ma leeralal leen lan moo war a tànki njabar ci sama ëtt bii man ngeen bu boobaa la. dara. ah. nettali sa gént. waaw ba nga nettali sa géntu morom naa fekk lay déglu moytu lii. ñu hmm. faa ma xam ko faa ma xam ko mun koo nettali ci ndax man yii mooy sama yitte ah yii mooy yii mooy yi ma xam ko faa faa a xam ko mën koo nettali ci wax yi faa ma xam boo boo faa ma xam ah gars yi waaye yéen kaddu yi fi jóg yëpp yéemu ah yéen ah ñu sama lingeer jubluñ ci won toroxal doom adama de dafa fekk ni wax ju fi ñew bëgg jaxass suñu digënté ñun ak yaw daqku daf ñuy gënal ndax lepp luñu mëna am ci aduna yaw yañu ko gënal yaay suñuy bëñ yaay suñuy gëtt kon suñu lek gu neex yaw la suñu gis-gis bu leer it yaw la ñu ngi tup tay jéggalu si jëf biñu jëf ba nga am ci dara lu la metti bàyyi di toroxal doomu adama jërëjëf ñu yéen ak jàmm waaye lan mooy sababu dem ba ñu demoon dëkkum njéeme ba oh. jarul ngay àgg ndax noppi naa bu yàgg bor wax ma noo ko bëggee ma fayee la ko. ñaari góor jigéen ma tër leen ci sama ëtt bi tàqale seen bopp ak seen baat bi yóbbu ko sama jéggi maam. ñebe. bëgg na nga xam kawoon démbaat kii tey Moussa waaw gis ngeen noonu la demee création bi xale yi def mu nekk création bu doyoo doyoo waar nii la nag théâtre dafa am ay surprise dafa am ay suspense dafa am ay nga toog di xalaat di xaar lu doyoo waar ñu feneen foofu la xale yi foofu lañ génn mooy dañoo jógee fii dem fii dañ la concentré woo nga seetaan ñu jékki-jékk gis la ci ay ay génn loolu dafa doyoo waar seex xale yi dafa doyoo waar lii yéeme na. dafa doyoo mbay li ma la doon wax sànq rek moo ñëwaat liggéey rek a wóor. Mhm. liggéey rek a wóor. Mhm. ñi doon wax naan xale yi dañuy topp suñu ginnaaw ñu leen di nax ñun mënuñoo def ci ñoom théâtre bu ñu seetaanee lii rus. dëgg la lii lii ku ko seetaan rus. Mhm. ku ko seetaan xam ne xale yi def nañ ci ñoom dëgg-dëgg théâtre te xale yi li xale yi maanaam. am nañu loo xamante ne nii sax mag ñi amuñu ko. dëgg la xale yi am nañ loo xamante ne nii amuñu ko xale yi ci côté jeu gis nga pièce bi ni mu démarré ba ni mu jeexee bàyyiwuñu benn yoon. ci côté expression faciale gis nga comprendre xale yi ku ciy déclamer texte da nga yëg ni kii nii texte bi daf koy yëg. daf koy yëg te gis nga maanaam création njabar bi dafa am lu muy wax. Mhm. lii ko amul dégg-dégg ku ne doo ko dégg théâtre yëfu jinne la nekkul yëfu nit. <laughs> il faut ngeen xam loolu bu baax a baax a baax a baax. <laughs> bàyyi leen sànni xeer te ngeen dem jàng ji tey théâtre dëgg la bàyyi leen sànni xeer te ngeen dem jàng ji théâtre gis nga mbay gis nga koy liggéey ak ki toog di wax yemuñu comprendre nit ñi nañ leen bàyyi ñu wax ñoom ñoo àppoo wax ñun ñoo àppoo liggéey àppoo jëf dëgg la <laughs> waaw dëgg leer waaw waaw ñoom ñoo àppoo wax ñun ñoo àppoo liggéey ñun dañuy liggéey ñun kenn muñu ñoo découragé loo xale yi ñun la ñu bëgg te ñun la ñu gëm suñuy mhm. njaboot la ñu mhm. comprendre kon il faut na ngeen arrêté te xam ne xale yi nekk nekk suñu ginnaaw nii théâtre la ñu bëgg bu ñu demee ba gisatuñu ci ñun théâtre nañ ñu bàyyi dem seeti keneen dëgg la wax ji loolu ah, leer na <laughs> naa ni dafa naa loolu leer na kon liggéey rek ko ki taxaw na la boo gisoo ci man métier mi bàyyi ma nga dem seetale leen koo amul ci benn intérêt da lay jàngal te yàlla tax jàngale théâtre dafa metti kon ku koy def dañ war a encouragé ku koy def dañ war a encouragé encouragé leen gars yi ñu jëmbat xale yi xale yi ñëpp xam ne amul lu sax ci àdduna képp ku fi nekk da nga fiy jógee keneen ñëw kon nag ñi fi nekk bu jàngalu ñu fi nekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñu nekk ci suuf kañ la te nag maa xam nga ñu ne gën a jege ñooy ñooy ñooy a xeer yi affaire dafa yéeme dafa doy waar dañ bàyyi loolu gars yi nañu bàyyi loolu dañuy ànd te yàlla rek tax ànd ci dëgg ànd ci fula ak fayda kii jàmbaar la barki Serigne Saliou Mbacke bala ngeen koo xam fekk leen ko fee géejëwaay ke Saliou ba mu nekk dëgg fa ak xale yi nekk ci ruq pukusam bu xat dégaloo ak xale di boole seen fukk ak seen juróom di leen liggéey te yàlla rek tax ñu leen di invité waat tamit vendredi ndax am na benn boy box moom bu tudd Cheikh Ndiaye def anniversaire am dañuy ñëw ak ak yéen tamit tuuti ci leeral mu expliqué ñu tamit programme boobu naka lay naka lay waaw koy mbay euh, programme bi euh, programme mu spectacle théâtral la parce que ñun ñëpp miin nañu ñun ñëpp comédiens yi léegi ku ciy def sa anniversaire da koy def spectacle théâtral parce que loolu la ñu xam. Mhm. loolu la ñu miin i comprendre c'est que musiciens yi ku ciy def sa anniversaire comprendre da wala nga woote leneen ak leneen ak leen comme nag dina da galaa nga toog di way léegi nag ñun comédiens yi ñun ñun ñun ñi nga xamante ni jàppee nañ ñu ñun ñun xamuñu dara <laughs> bu ñuy wootee eh, anniversaire dañ koy def sous forme de spectacle théâtral woo ñi nga xamante ne nii suñu ay nawle lañu ñoo bokk ak moom ñoo bokk ak ñoom millier bi. ndeysaan ñoom ñu ñëw tamit def seen participation bis ba ku fa ñëw di nga seetaan théâtre pur et dur. c'est parce que am nañu ay création yoo xamante ne nii foofu lañ koy exposé. comprendre waa def sa wareef dañuy ñëw waa daaray Dunia waa arko bu Géejawaay ah waa arko Pikine invité nañu artiste képp ku képp koo xamante ne nii nekk nga artiste rek yow bis ba. invité nañ la si te mbay ñun suñu koñ dafa gëj a am spectacle théâtral dafa gëj am sax parce que pendant Covid bi ba léegi. Mhm. activité théâtrale amu fa comprendre activité culturelle yi tamit rarement comprendre léegi nag ñun dafa jot ñu wane suñu bopp dem nañ ba si monsieur le maire comprendre Modou Gueye xam nga ñu ngi lay ñu ngi lay. li ngi lay ñu ngi lay lancé défi bi di wax ni ba ñëw nañ fa mais recevoir guñu ba léegi. ah comprendre waaw Modou Gueye recevoir ba léegi te dañ ñoo war a recevoir monsieur le parce que sa campagne bi dama cee def sama sama sama sama. ay ñooy ay yow xam nga sax yow xam nga yow xam nga kon waaw xam naa nag dina ma woo. dina la woo waaw daf may woo. lii nii waaw waaw ah, da lay woo. <laughs> may woo ñooñu dañ a jàpp seex. sa monsieur le maire boo def programme moo la war a taxaw. Mhm. taxaw bi nag nekkul lenn lu dul ngeen soutenir ñu. ma ni ngeen soutenir ñu mhm. soutenir la xale yi teg leen loxo programme boobu war na mën a neex parce que loo xam dafa gëj a am ci gox théâtre ñu koy jëmbat ci gox képp ku nekk ci gox boobu war a def sa doole rek sa kàttan parce que dafa nekk loo xam ne loolu extraordinaire la te mbay foofu noonu ah, doguma la de yàlla bu la dee dog parce ñun comédiens yi nekk foofu noonu maanaam dafa am benn combat boo xamante ne ni ñu ngi koy mëne à travers ak suñu pièces yi nga xamante ne ni moom la ñuy joué c'est parce que c'est parce que temps yi bokk comme naan suñu koñ la dëkk te programme bi fi ñu koy defee ak fi monument am bi nekk tout près la kon kon ñooñ tamit seen waa kër dañuy ñëw seetaan si te tey jii maanaam insécurité bi nga xamante ne nii mi ngi dox ji da caara kaw loolu la ñu bëgg a xeex te ku nekk nag ca la nga mën loolu ngay dimbalee nit ñun si suñu voix la ñu am ak suñu image loolu la ñuy dimbalee suñu gox feer nañ nag ci dëkk ci dëkk ji da caaroy kaw parce que foofu la juddoo foofu la ñu yaroo foofu la ñu màggee mhm. comme naan du ñu ndamoo beneen gox bàyyi suñu gox mhm. te compagnie bii nii muy daara dunia fofu la nekk kon il faut assez que monsieur le maire mom tam mu def si participation am su ko si defee daf ko ci wara def su ko ci deful def ko ci wara def c'est parce que euh, euh, budget bi nga xamanteni mom lañu la pour culture bi isé yaa ngi dégg ah, pour euh, communal bi daara dunia daf ci am part kon il faut à que ñu xam loolu noonu bu baax a baax a baax a baax mu ñëw soutenir ñu spectacle bi bëgg nañu mbooleem autorité bu nekk Djida Thiaroye Kaw mu ñëw toog seetaan spectacle bi parce que am na loo xamante ne nii nag ak tamit jeunesse bi parce que ñun ñooy demalante suñu biir ñun ñooy xeex suñu biir ñun ñooy reyante suñu biir mhm. te spectacle bi am na benn partie boo xam ne ci loolu lay wax mhm. kon ñi ngi invité mbooleem ku nekk Djida Thiaroye Kaw moo xam nag ci domaine boo mënti nekk rek ñu ngi lay invité di invité suñu mbokku artistes yëpp mbay incha allah allah macha allah defe naa message boobu tamit lu am solo la loolu ngeen sumb noonu yàlla na leen yàlla dimbale ba ngeen am kattan gole ko yeggalee parce que ndeysaan loolu loolu képp kuy doo doomu aadama rek yëg ci sa bopp mooy mooy mooy insécurité bi am rey yi xam nga dafa ñaaw ñu ñun ñun jeunes yi ñuy def naka suñu noonu dafa ñaaw kon bu ñu amee kenn koo xam ne taxaw na ngir wax ci loolu wala taxaw na ngir jëf ci loolu ñun ñëpp dañoo war a àndandoo ànd mànkoo ak moom monsieur le maire yow la ñu am ñu teewal fépp ñu lay sàkku yow nga ñëw teg ñu loxo ba loolu noonu ñu eggali ko ngir ñu mën ko def ci feneen ak feneen ak feneen ak feneen moo a ba leen jógee ci ko defaat leen ko loolu dafa war a tas mu mm-hmm. xul muñ yàlla baax na waaye ba tey gis nga ndeysaan ça c'est le monsieur waaw oh.

dama sob na nga baal ma de léegi ci benn lancé bu rythme bu doy waar daan ànd ak daan ànd ak Idrissa programme yi ngay joué di di ko toj di lay gis ci télé yi ci image yi nga jékki-jékki rek créé benn compagnie seex doolu dula dula dula aneer loo tuuti nattu la dama ko nangu <laughs> nattu la tontu yu neex lay tontu <laughs> nattu la dama kaa nangu parce que xam nga yàlla euh, bu la nattoo benn affaire mbay is xam nga benn affaire jiite mbooloo nekkul yàlla ñëpp la ko mën loo na ñoo xamante ni dund nañu ba dee mbay xam nga olof lu mu wax nee na doomi mbërëk wëlliw buñ ko doo tarbiyu wala di ko jox addiye maqaama baayam moo dëgg la waaye maqaama bi muy am ba jiite mbooloo loolu moo koy sàkkul boppam dëgg la est-ce que xam nga ni nit dund na ba dee bëgg mbooloo ba kaa gérer te mënu kaa gérer mbay ñaata association nga gis ñu tas te xaalis soo koy tas dëgg la ñaata association nga gis mu tas te jigéen a koy tas mhm. mais ñun yàlla dafa dogal ci ñun loolu ñun dañoo suur démb tey soog a ñëw ñun balaa ñu dugg ci théâtre yaa ngi comprendre la ñu yàlla commencé teral théâtre ñëw gën ñoo teral. comprendre kon maanaam koom bi bàyyiwuñu ci théâtre ici yaa ngi comprendre xam nga xam nga lu tax ma ne la nattu la parce que am na loo xamante ni bëgg-bëgg la maanaam euh, bi biñ ci am ak bi biñ ci am. Ici, yaa comprendre passion la quoi en fait ñun théâtre buñ buñ koy def bi taxul mais passion la passion boobu noonu moom la ñu gëmloo xale yi mhm. leen passion boobu noonu dafa am c'est parce que mbay théâtre métier la dëgg la comme un métier yi mhm. dañ koy jàng théâtre boo ko jàngul doo ko a def mais dafa am ñuy jaawale théâtre ak téléfilm ak cinéma xale yi lii ñuy def ni, moom mooy théâtre bi dëgg la si yaa ngi comprendre li ñuy def nii moom théâtre da nga leen di fekk ci salle n'y comme que ñuy ñàkk tooy xepp mu leer kenn gis nga ak tamit période bii nii ñu toll nii su leen neexoon ñu dem bokk ji ay tuuru mardi su leen neexoon ñu dem nangam ak nangam ak mais yàlla nattuñu ñun ñu bëggandoo ak ñoom théâtre ñu ñëw fekki suñu ci affaire boobu noonu ñuy def kon mbay xale yi il faut maanaam il faut ñu jàppale leen il faut ñu jàppale leen te xam ni lii nattu la yàlla moo leen ñu nattoo ñun tamit yàlla moo leen ñu nattoo dëgg la comprendre kon il faut ñu nangu dogal bi rek bu neexee nañu gérer bu naqaree tamit nañu gérer ici mm-hmm. yaa ngi comprendre parce que xam nga lu tax mbay Eh, gis nga gis nga bu nekkoon maanaam ñoom ay mala lañu. Mhm. benn yat kese ngay yor. Mhm. mais ay nit lañu. te nit ku nekk ak jikkoom. nit ku nekk ak jikkoom. léegi nag yow boo bañee sonn àndal ak moom ci sa jikko yow. chaque jour yow sa saal am ku la def lu la metti wallaay la wallaay la wallaay <laughs> la wallaay la mais xoolal terewul da ngay boole lu la neex ak lu la naqar yëpp ñëw yaa ngi dégg ànd ak ñoom gérer. parce que nattu la ah, man tamit sama saal chaque jour ñu def ma lu ma metti me mun naa gedd de mais damay dem <laughs> waaw damay bàyyi naa bu ma kenn de jël samay objet dem sama yoon dem ñu bàyyi leen ci saal bi ñoom ñu am fullaay répété ba pare fekk ma sama kër dëgg la ñu am fullaay répété ba pare fekk ma sama kër ne ma Cheikh soo bàyyee da ñuy trahir mhm. te wax nañ dëgg mhm. trahison boobu noonu dëgg la parce que munoo tabax sa kër dem ba kuule kese des nga bàyyi noonu sànc ba dem dafa ñàkk fayda sax. gis nga lool ñàkk fayda sax loolu yëfu ñàkk fayda la. sa ko moom bu ko abandonné. déedéet déedéet bu ko abandonné te xam ni lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bis dina ñëw di nga étage ci kaw. incha allah te xale yii nii mbay. Hmm. buñ leen jàppalee dañ leen war a jàppale buñ leen jàppalewul tamit dañ leen a war a jàppale. dañ leen a jàppale nañ leen jàppale. nañ leen jàpp c'est parce bëgg nañ ba pare. bëgg nañ moom bëgg nañ ba pare. dinañ de billaay te mbay est-ce xam nga est-ce xam nga benn affaire ci xale yi xale yi léegi maanaam ñi ñu doon àndal bu njëkk ba àndatuloo ak ñoom. bàyyi nañ le bàyyi nañ leen alors lan na la yow. <laughs> ku dul comédien du ñu ànd ak yow. damaa sob keroog ba jël sama benn téléphone booy ma jël ko nii di manipuler mais damay gis diw artiste diw artiste diw maanaam kon kii bi yëpp diw artiste rek diw artiste ndeysaan mu doon loo xamante ne nii lu doy waar ku nekk say mbokk ngay àndal te gis nga suñu métier bu duggee si yow doo ànd ku dul théâtre kat parce que waxtaan ba mooy tax ak jëf ba mhm. waaye defe naa ni foofu la ñuy foofu la ñuy daal di daal di wàccee rek daal di daal di tënk ndax waxtu bi dañoo xoj seex ñu bàyyi ko moom mu tàggatoo waaye seex dama leen bëgg a xamante ne kii moo xale yii ay morom lañu bu liggéey jotee dama leen koy wan léegi-léegi dama leen koy wan benn misaal bu tuuti rek ay morom a xam ne César dafa mën danse <laughs> bu la ko dëggalee baax na mais taw émission dama ko tëjee ambiance bu saf bu neex seex yi nga gis seex ni muy ambiance ak muy foowee ak xale yi pour ngeen xam ni ñun ñëpp benn lañu on est ensemble ñoo far tàggatoo kon gars yi ñu ngi leen di jox dig daje di sant suñu cadreur yi nga xamante ni kenn du ñoom mm-hmm. lu ñu cadré wul instant bi ni baaxul ñoo fi ne cadre wul instant bi baaxul ñoom ñoo fi ne ah di leen wax ni kontaan nañu luñ fi wax lu jub ñu xam ne yàlla la may lu fi dëng tamit ñu xam ne nit bu matul rek moo doon wax kon léegi kon dig daje laay roon toppalee ma caméra yi nga xool Cheikh Sarr damay ambiancé ak xale yi lu muy dund ak xale yi imité le micro te damay commencé xool samay commencé xale yi di ñëw xale yi ñu yóbbu Cheikh Sarr bakkata bakkata bakkata bakkata bakkata bakkata casa, pra casa. Parabéns! Ura, tá, Gugu. Ura, kan, kan, kan, kan, kan, kan, can. Can, can. Can, can. Can, can. Can, can. Eh! Kokot, kokot, kokot. Rapatet, kokot, kokot. Eh! Kokot, kokot, kokot. Kijer, dam lo xamanteni ni xalé min nañ ko min nañ ko ci man waaw foofu la ñuy dem rek. ñu dem e, man damane dimbali ma toto man man sawayla e, toto man e, to man sawayla toto to man sawayla man sa baay laa dimbali ma man sa baay laa eh, dimbali ma to to man sa baay laa dimbali ma eh, to saaro ana albi saaro sabimbe xarabi saaro man dimane dimbali ma to to man sa baay laa dimbali ma to to man sa baay laa dimbali ma to to man sa baay laa dimbali ma to to to man sa baay laa dimbali ma to to man sabaay la dimbalima saro ana albisaro sabimbe halami eh, saro man damane dimbalima toto man sabaay la dimbalima merci defe naa noonu la demee woon la demee woon ak production ñu àndoon tey ak def sa wareef ak waa daara ji ñu ànd ko ak Cheikh Sarr gars yi ni ko Cheikh Sarr waxee rek bàyyi la demee saa su ne gis ngeen xale création bi fi def gis ngeen niñ doon liñ doon mën ci ci seen formation bi di leen jox dig ¡No, no, no! na